taaral ko nib coobu mbaa tenqal ma buñ gënali dunduk sëriñ sàmba diglul tey ma wax la ci lëf ku réere woon ko tegal sam xel ma wax la lile saalum la fenke ca naawil mbir ma kenn du ko lëm baayam ba tudde ko sañ maam sàmba ceebu mile ma wax diggam ak sëriñ tuubaa boroom jamono lim am ci sëñ bàmba kum neexul nga topp file bu bamba daa wax da daa sëngee mu yëm ca kaw am mag mu ñëw ne ko sa maam sàmba yaa sonale bu bamba dee wax nga def aw dënn xawwu ca kaw ba kenn du xam wax ji tee nga noppi def ku dali mu naa akoon tee ma jéem koo def ba xam dana gën am bis sëriñ bi di wax mu cell nip kéwali sëriñ bi ne sàmba daa nekkul fileem lu waral kàddoom gi dégguma am buur bii da caa dogali mu def béret mag ñi dar seen bopp xam ne sëriñ masamba lii mu saxoo bàmbaa ko bëgge ni le ca daana wax yàlla na buur bii def ma bëgg sëriñ tuubaalu lu géttil aboo bakrin ta koy saxali ca am na bis bamba wax am mag mu fit wa dëgër jug naa ko sëñ bamba wax ji kenn da koo xamuli sëriñ bi ne sañ masambam kan ni daa ñëwulam ñu maase déet mu yebal as ndaw mu dal ko jëli mu ñëw ba toog ñépp toog sëñ bàmba daa di waxaat masamba naa wax ji moo leer nañ ñi fil xaqali sëñ bàmba wan na ko bis yónneen ba xar kanamam ci penk teem jàkk jëhërën nee ñu duy xësali ca am na néeg bopp sëriñ Touba waxoon na ca bis ku dul sëriñ sàmba ak Cheikh Ibra doo ca julli Cheikh Ibra Fall nee na woon nañ sant bam di xale bu doon mukallaf ku dul moom Bamba doo ca jëli dundam nga cam su ko doon sàlloo xalam ak kañ du daj lu dul li ma daj moo tax ma far yamali ma dellu tëj way wi ndax saa xel mi moo taxawi ta xel mu gàk cam su koy gàgganti doo ko tali ta xel mu gàk cam su koy gàgganti doo ko tali salaamaaleykum wa rahmatullaahi